damaa def erreur nag noonu naa ko jox benn kii bi rek yor li ci des mais munoon naa ñëw nag heure bi léegi mu jot léegi nda jot lu heure fi mu toll nii xaar xaar te man yoruma numéro ah, te kër bàyyi du ma fa dugg parce que bàyyi maa moom danoo raag raag bu métti la ñu raag man doonatul sama nawle quoi bàyyi moom dama koy bàyyi quoi dama koy off off naa ko ah xanaa ma ji mu fëgg jib saar rek xool xam chauve-souris Djiby Sarr Djiby ma sa waa ji yóbbul sama ñeenti junni yi Djiby Sarr gis nga nag ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom si danoo danoo xaw a compliqué quoi waaw ça va bien Baye. naka mu bien naka koor gi. sant nañ ko alhamdulilah alhamdulilah. nag fi mu toll nii problème daa am. problème waaw. parce que kër gi fi daa am coow. ñu ngi ci crise ah. coow li bari na trop. maa ngi défendre ndax yow. maa ngi may xas ndax yow. maa ngi jooy ndax yow. Ah léegi daal. oui xaalis ba mu la joxoon. waaw waaw waaw la nëbb. Mhm. si rakk kooko moom bàyyi kooku laa dóor xaalisam pour jox la ko pour nga mën a maa dugalal quinze millions yi est-ce que yaa loolu dong la mais dama koo sàcc moom ah ma tubaab dani celui qui ne risque rien n'a rien mhm. comme risque nga nga def loolu mhm. léegi ñaata la jox quinze millions waaw léegi dama koy arrondir def ko vingt cinq mu jeex ndax risque bi nga jël. très bien yow am dara looy tiit appuyé foofu rek. ah mais nag mais nag mais ñëw léegi kon. saa nga dugal dara ba mën a fay bor bi. parce que dañoo dem ci nii nii nii te sëriñ boobu moom liggéeyam daar daar. trois cent mille dara. waaye léegi may moom ma dallu après su ma duggee banque ñëw. non xoolal eh xoolal xoolal xoolal Abdou eh, eh, yaa ngi dépassé bor du yaa ngi yaa ngi bordé de xam lu ma bëgg na nga wax ak man ci ndax parce que man ci yi nga nekk ne ku ma tuddee. déedéet déedéet non déedéet déedéet déedéet waaye doxantoo xaalis kaas kaas ak kees kees saa ci yamale xaalisu jàmbur la ah xaalisu jàmbur la. waaw man dañ ma da da maa ko sàcc ñu jàpp ma kay duñu dem ci sëriñ kay. ndax ma xaalis jàmbur ma delloo ko. wala wuy ma mais bàyyi ma tuuti ma dallu. déedéet déedéet balaa ngaa ndogu duñ ci jot. ma la ko wax wuy ma déedéet xoolal man yooyu nekk moo ci de lambal rek bu fekkee yor ma daal dina ma 300000 gannaaw nga bàyyi 15000 delloo. wala kon bàyyi ma dugg ñëw. ah xaaral ma bàyyi ma dugg ñëw pourtant xaas jàmbur la de. xaar ma dugg ñëw. damal damal xaas jàmbur la. ay eh, eh, Abdoulaye man daf ma daal yaa ngi xaar déglu de. xam ya, mën nañu maa liggéey fii yàq sama carrière def ma may doxee ŋaaru tànk nga naan. parce que lii faaw ma am ci pexe faaw ma am waaw booy. mais père. ah dañoo wóor nag yow tamit. Eh, ah. fàtte naa loolu. ndax yaa ngi wóor. mais bàyyil ma lijjanti la benn litre bootal dina baax. litre bootal mooy lan. benn litre bootal pour nga fàtte lépp. naan waaw. man du naan sàngara de. non loolu du sàngara. Ah, bootal waaye fin ay yooyu noonu. moom non kooku père ba day tax nga fàtte lépp. ah waaw beneen niveau ngay nekk sans boobu. du ma déconné. non doo mën a déconné. du ma ñoo doo ruube tamit. ma jay jay non doo def dara. du am trace da lay loolu. Hmm, mais ku bu ñu liggéeyee tamit du jàpp. dara du jàpp da ngay blender instant boobu. ah dara nekk ci kaw. aju saa bi yaay ci kaw niveau. beneen niveau waaw. da am leneen. Hmm. waaw. waaw ah, léegi fa fan la secteur bi la nii rek boo jàddee ni benn piol bu ma am. waaw ah. waaw ma la. waaw la neexee doxal naa ma toog la xam nga yow bànni nga. waaw bëgguma ñu aaji civil sama ginnaaw rek doxal ma civil doxal doxal doxal ma civil. man jàpp comme ni